lakk gu métti gi nga xam ne moo amoon ci marché ocas bu Touba ci fan yi te li fi yàqu takku lool président Serigne Boub ànd nag délégation ñëw doon ko nemmeeku massawu mboolem commerçant yi nga xam ne ñoo fa yàqule ànd ak ñoom métti wi. seet si lii fi xew nga xam ne ñun ñëpp la laal ndax kenn ku ne boo yoree économie xam nga ne nit yàqule yàq yàqule na fi. loo xam ne laal na la ndax yaa ngi doon liggéey ak moom surtout état bi nga xam ne nii activité économique bi ci loxoom la nekk masawu xalifa général des Mourides sëñ Muntaxa Bachir masawu sëñ Ablaat Ka mii mi nga xam ne nii mooy meeru Touba ba ba pare nekkaat premier vice président chambre de commerce bu Diourbel wu délégué marché bi wu association assise ak association yeneen yi fi nekk yëpp di wax rek ne képp kuy liggéey nga yàq-yàq waxuma la sax nga lakkale waaye nga toog benn fan wala ñaari fan boo liggéeyul rek lu metti la li ñu war a jiital rek mooy muñ ndax yàlla moo ñu ko wax yàlla da daan jël yonent bi ak ñim àndal nattu leen a ah, ba nga xam ne nii dañuy jaaxle sax ba naan ana ndimbalu yàlla masathumul ba'sa wa daraaw wa zilzilu hatta yaqulu rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah kon nag suñu yàlla nattoo ñun nañ ko muñ loolu mooy ab jaam waaye nag jéem nuñ mën a góorgóorlu reprendre suñu liggéey waaye dox ci yoon woo xam ne tamit danañ fexe ba loolu du ñu dal. ci nemmeeku gi président Serigne Mboup yëkkati na ñaari million ci suñu koppar jébbal ko ñi nga xam ne ñoo yàqule ci làkk gi. man tamit en tant que loolu ma leen wax ma indi woon sama participation tamit xam naa si symbolique muy 2 million ah ma teg ko ci loxol maire xam naa mu xool ci loxol ku koy teg di ñaan tamit opérateur économique yi. wa taawanu alal birri wa taqwa nañ jàppalante rek kenn ku ne loo man ñu dajale ko jàppaleen ko ñoom xalaat. bi nga amee yëg-yëg boobu ak naqar wi ànd koog ñun nga ñëw jël sa alal ñëw boole ko jàppale ko ñi nga xam ne ñooy sinistrés yi. defuñu lu di ko rafetlu dina ñaanal ci barkeb Serigne Touba mi nga xam ne moom lañ bokk yaakaar suñ borom yàggal saw fan guddal saw euh, guddal saw fan wéeral saw yaram ba li nga yéene liggéey Sénégal nga defee ko na ko bëggee état bu Sénégal diggée ne dina defar marché Ocass bu Touba boole ko ci programme marché yi muy defar ci Sénégal président Serigne Mboup di ñaan état bu Sénégal bala muy def lu ni mel na amal concertation di waxtaan ak mboolem commerçant yi ngir agré réeroo bañ ciy am programme yi mu am pour mën ko def mu ñëw laaj leen ñoom lan lañ bëgg ndax wax dëgg yàlla li may gis gouvernement bi am na yéene pour tabaxaat marché bi waaye li ci ëpp solo fi coow liy ëpp mooy dañuy dem xalaat dikk ne lii la ñuy def buñ dikkee ñu rejeté ko nañ dikk laaj ñu nekk ci marché bi ñu concertation ne nan lañ ko mën a defaree ba ñëpp xaj fi mu am sécurité jàmm am fi ah yaakaar naa lépp lu am loolu yàlla danañ ci dimbale. financement yi nga xam ne état bu Sénégal saa su ne mi ngi koy séddale ci réew mi am na lu ko gën le président boobu xam xamle. waaye man damaa gis benn point boo xam ne nii mi ngi yàq économie bi mooy ñu ngi bëgg a jël c'est vrai que entrepreneur entrepreneuriat baax na soo demee ci àdduna bi yëpp entrepreneur boo gis dafa commencé ci. 1000 francs ci 2000 francs concevoir ko boppam mais xaalis yi ñuy jël di ko financer waxuma ne baaxul de ndax soo ko waxee ñi ci am danañ ne nanga waaye léeg-léeg mën na créer nit plus de problème parce que da nga ko lebal amul yoon bu mu ko mën a utiliser mu endetté wala mu jël xaalis bi mu nar a yàq ci moom mu génn réew mi ndax koo ci gis ñu ci bari man dund naa ko ndax financé naa ay boutique mais bu ñu demee ba boutique bi nar a yàqu la ñuy def mooy jaay ko fexe nuñ génn réew mi te loolu day créer situation boo xam ni mën na déstabiliser vie humaine man nag solution bi ma ci gis mooy fexe emploi emploi mooy lan mooy usines yi fi nekkoon dox sëriñ si yi bay ñu fexe leen jàppale bañ gën a mën a bay employé nit ñi commerçant yi am boutique ñu fexe bañ jàpp leen bañ gën a mën a jaay xale yi xaw a génn ci ambulant parce que dafa metti xam ni may wax ñoom xam nañ ko waaye ambulant boo fi gis mënoo ko tere ambulant te joxoo ko emploi. président Serigne Mboup ñaax na mboolem commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci tubaa rawatina ñi nga xam ne ñoo lakkale ci ñu gën a booloo doon benn ubbil na leen buntam ci mbooleem xalaat yoo xamante ni dana mën a suqali koom-koomi dëkk bi.